سلام alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmuci suunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 wa rahmatullahi di jël ci waat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu sunna waxoon naa la ko démb ci waxtu wi ne sunna daal buñ ko waxee rek mooy lu yonent bi wax wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam mu yëg ko te noppi ca su ma ne kanamam rek manqué na mu duñ jëf moom mu yëg ko te noppi ca ndax bu ko yëgee bu teguwul ci yoon rek ca la koy weddi dàq loola bañ ñu koy woyal naka noonu tamit tabaarakallaahu noonu ngay fekkee ñi continuer ci seen def yoo xam ne yonantu musu koo def jëlal ku mel ni ibnu omar def na ko moom moo wax ne ci hadis boo xam ne abu daawuda moo ko génnee mu ne ibnu omar moo jëlee si yonantu ba ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama fi tasahudi mu ne attahiyaatu lillahi assakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa mu ne wa rahmatullahi jooju sax foofa la taaya xemoon ci jamono yonent bi ibnu Omar ay wax mu ne man ibnu Omar mile maa ci dolli wa barakaatuhu assalaamu alayka ayuha nabi la taaya xemoon ci jamono yonent bi ibnu Omar mi doomi Omar ibnul baayam di saaba moom muy saaba mu ne man maa ci dolli wa wa barakaatuhu moo tax mu ne sittu fiha wa barakaatuhu mu demaat ba ci kanam mu ne maa ci dolli haat ashhadu an laa ilaha illa su ko defee tamit wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mu ne man mii maa ko ci dolli xoolal li moom moo ko ci dolli su ko defee kon nag demal ci baslul majhud da nga ko ci fekk kon xoolal yëg na ni rek euh, euh, yonantu bi xam fale waxul lii ba nim génn àdduna ci taaya waxul fenn ne wax leen ko ci taaya moom mu xam sañ-sañu jël dolli ci wa barakaatuhu xam sañ-sañu dolli ci wahdahu la sharika lahu am sañ-sañu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul dolli ko ca ba tax na tey lam ca dolli ñun ñëpp a ngi koy dolli ñun ñëpp a ngi koy dolli fu mu ne nii xamatuñ ca sax ñu koy indi rabbana atina ak yeneen ak yeneen yu dul jeex ba demee ci risala ziyaada de kenn xamul ni mu toll boo demee ca rawoniyu kenn xamul wala mawaahibul jëlil lañ ca dolli waaye ndeketoo lañ ca ñambaas moo sirëb cosaan ba mën nañoo ànd defe neneen rek la waaye duhut def leneen waaye moom moo taxaw ne man maa ci dolli ñaari yoon zittu fiha maratayni fi tasawudi fi salaati moo ko wax ñaari yoon laa ca dolli maa ci njëkk a dolli wa barakaatu dolli waat ca timit ashhadu an laa ilaha illallah ba ci wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waaye dafa yëg ne lii mën naa ànd moom waaye boo ne asalaamu aleyka ayuhan nabi yow yonentoob yàlla bi wa rahmatullahi ak yërmande yàlla ji waaye waaye xam nga ne wa barakaatu mën naa ànd moom de ndax yonentoo ne woon xaddu salaami albarakatu daytalab nuyoo mi ngi xam ci baraka moo tax mos naa ñëw toog am ku ñëw nuyu ko ne ko asalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu bi ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa toog kooka toog keneen ñëw ne ko asalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullah mu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kañ ngay ñëw ne ko asalaamu aleyka ayuha nabi yonent bi ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi kon xem ca waaja njëkkoon nuyoo ne ko ñaar ñi kenn ku ne dollil nga ko te man dollil loo ma dara kii dollil nga ko wa ko wa barakaatu man nag barakatullahi xemoon nga xemale ma ci barakatu dolli ma dara yonent bi ne ko xaddu salaami al baraka daytalam nuyoo mi xem ci baraka kon nag moom buñ mu yooyu yonantu bi nii te lii fuqahaa yi ñu li ko waral yonantu bi muy def isra ba mu jeex muy def miraaj ba bu doon yàlla di am néeg ñu ne xegg na ca bunt ba mais yàlla amul néeg woo fi kulli makaan mu ne waaw nu ma koy nuyoo su ma ne ko asalaamu day mel ni góor la su ma ne asalaamu day mel ni jigéen la te yàlla du ku ñu góor ak a jigéenal ndax du jëmm bañ koy góor ak a jigéenal yàlla tàbbal ca xol ba xel ma ne ko nuyoxal ne attaxiyaatu lillaahi azakiyaatu lillaahi attayibaatu salawaatu lillaahi yonent bi nuyoo noona yàlla yàlla fay ko ne ko assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yaxenu aras tabaarakallaahu tamit dolli ca ne assalaamu alayna wa ala ibadallahi saalihina su ko defee ñu ne foofa la taaya soqee ko ca commencement ba boo demee ci ulama wu siri wax nañ ko boo demee ci fuqaawu yi tamit da ko ci fekk ci téere yi kon tabaarakallaahu ci Ruhun nii da ko ci fekk danga ko fekk ci mawaahibul jalil kon ci te demal ci mudawwanatul kubra da nga ko ci fekk kon yooyu bu ñuy àndee moom mu yokk ca wa barakatu rahmatu barakatu mën nañoo ànd waaye ashadu an laa ilaha illallah mën naa ànd ak loola yàlla rek laay dëggal di seede ne moom rek kay buur waaye dama ne ashadu an laa ilaha illa mën naa ànd ak wa ashadu anna muhammadan rasulullahi ndax kay tuub tamit moom la boole woon kay nodd moom la boole woon kay liqaam moom la boole woon kon fa defee neneen waaye deful leneen waaye bu ca dolli woon lu noonu du ko ñemee wax de kon nag man ahdasa fi amrina man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wa man ahdasa nag maa laysa maa huwa minhu laa yuraddu kon nag xadisab kullu muhdasatin bidaa wér na waaye xam ju ñu la danaa ci ñëw gën la koo leeralal ba mu gën a leer kon yima limal la yépp dañ koo dolli ci jamono yonent bi def ko te bi defut ko waxut ko diglewut fenn wax leen ko mbaa ngeen def ko xamul ku ko mës a def ci kanamam mu mu saxal ko ñoom ñu gis ne kon da caa noppi dara niwu ca lu dara ne rek yonent wax na ko dara kon lu mu def lu mu waxu dara dara niwu ca ku ko gisee woon noona nga xam ne bi yónnee yonent bi ba bi gàddaay gi am juróomi téeméeri at ba juróomi juróom benn téeméer jullit ñëpp ci loolu lañ dëppoo woon kenn mosu ci am werante gannaaw si gi nag la loolu commencé soqee ko ba jamono ji ne la yonent bi waxut ku ko wax indi nga bidaa te bépp bidaa réer la bépp réer safara la lu yonent bi defut ku ko def indi nga bidaa te bépp bidaa réer la be réer maanaam euh, safara waay waay waay waay waay waay euh, fooy teg ñii gannaaw lii lépp nag te ñëwal ma wax la tamit gannaaw bi yonent bi génnee àdduna xibaaru saxaaba yi ko xuutu liñ fi sos def ko te yonent mosu koo def ci leel Aboubacar Siddiq mooy ki njëkk a gàddu jaasi di xeex tudd baatab seede bi yemut ci ngay julli waaye li nga ne duma ko def rek mooy ne duma julli duma joxe asaka moom ne ñu ne ñoo joxe asaka rek ñu dëkkoon Yamaamata ñu ne duñ joxe asaka rek Omar Seyduna Aboubacar gàttu jaasi ja ne danaa dem xeex ak ñoom wax ko Omar Omar ne ko naka ngay xeexeek ku dudd baatu seede bi naka ngay xeexeek kuy julli ah man de xeex bi d'accorduma ci Aboubacar ne ko dogu naa ci d'accord nga ci d'accordoo ci yëpp danaa ko def law mana'uni iqaala ba'irin kaanu yu adduunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaataltuhum walaay jatanka guñ doon jatankee gëlëm ñu ko daan jox yonantu bi tey ñu ne moom lañ ko war a jox nekkatu fi dootuñ ko joxeeti buñ ko ma ko buñ ma ko bañee joxati ma xeex ak ñoom ci lañ dem xeex yi ñu bëri ñu seen dënn yi alquran nekkoon ci matoon nañ juróomi téeméer ci ay saaba dee ca xare ba ñenn ñi kaamil bi lépp a ngi woon ci seen biir seen dënn yi ñenn ñi xaaj suuf ñenn ñi yaasin ak suuf ñenn ñi xamayat ak suuf ñenn ñi daal genn wàll gaag loola waaye daal juróomi téeméeri saxaaba yoo xam ne seen dënn ya alquran nang ci dee nañ ci xare ba kon Abubakar def la première bidaa xeex ak ku tudd baatu seede bi boole ko xeex ak koo xamee na nii ma ngay julli mu taxaw dogu ca bi guerre ba passé Omar ne siboon naa ko ci njëlbeen gi mais sant naa d'accord naa ca buj ga boo xeexutoon rek musiba am moo tax daana dem ba ci kanam mu ne yàlla na yàlla fay Aboubacar taxaw na taxawaayu ab yonantu ci aw xeetam la doon yonantu def ci aw xeetam Aboubacar def na ko ci xeet wi. bu bàyyi woon asaka jàll rek dañuy dem ba ci kanam ñu ne ah laal nañ asaka mu nooy jàll na ba nañ ko xaj màkk dafa metti nañ ko ba. buñ ba ci kanam ñu ne weeru koor dafa métti nañ ko ba buñ demee ba ci kanam ñu ne julli dafa métti ba jokk bokk dafa métti nañ ko ba seeti ku feebar dafa la ñuy def di wàññi wàññi ba njëkkee laal mu ne du jàll rek ñàkk a jàll googa moo tax dara jàllatut kenn ñu mutu cee wàññi lu mel ni benn fiftit kenn ñu mutu ko ci te lépp gannaaw yàlla grâce taxawaayu Seydina Aboubacar ba ñu ñibsee ca xare ba nag Omar ne ko nañ waxtaan def nga lu yonent bi defut de waxut ko waaye terewut fenn ne tamit bu leen ko def kon dara newu ca rek lay tekki dama bëgg tamit nga forme benn commission ñi war a taxaw pour mën a dajale alquran def ko muy benn kaamil bu ne ñumu fu nit taxaw mën a taxaw yóbbu kaamil ba jàng waaye alquran mii buñ ko bàyyee bu nekk ci dënn dënni nit ñi ñam nekkoon ci seen dënn bu ñu fi nekkatut alquran dootu fi nekkati te su boobaa ñu mujj ñu bu ñëwee duñ am repère. booba nag la fi yonantu bi nekk yëpp alquran mi ngi nekkoon lu ñu bind tabaarakallaahu ci ay yax yii ñu bind ko ci ay dex yii ñu bind ko ci jumtukaay yañ amoon waaye kaamil buñ ko mos a dagale mën a ñum nga mën a yëkkati taxaw ne mi ngi nii léppi alquran a ngi lu ca bokk ngi ci lu ca bokkut bokkut ci xamutoon ci jamono yonantu bi Omar ne ko nañ ko def Aboubacar moo njëkk a taxaw ne ko naka lay defee. lu yonantu bi defut maa ngi muslu yàlla di def lu yonantu bi defut kon kàddu googa ndeke abubakar siddiq mooy ki ko njëkk a wax mu ne ko maasallaahi an afaala ma lam yafaalhu rasulullahi salaa sallam wa lam yamur bihi maa ngi muslu yàlla def loo xam ne yonent bi defut ko te diglewut ko Omar ne ko yiw la de te yàllaa ne def leen yiw wallahi bu fekkoon ne duwut lu baax nu fa koy tere waaye comme terewut ko rek dara newu ci mu ne ca laa nekk di wax ak Aboubacar Aboubacar ne ba yàlla mu ji leeral sama xol bi ak sama xel mi ni mu leeralee xelu Seydina Omar mi ma koy sant mu forme commission jël Ali ibn Abi Talib bu jiite commission ba Seydina Ousmane Seydina maanaam Seydina Aliyu ma nga ca Ubay Kaab abu ayub al ansaariyu sayd ibnu saabit muaz ibnu jabal ñii la formé woon ne leen dagale leen a kaamilu yàlla bi muy alkuraan def ko muy benn kaamil aaye bu ne nag bala ngeen koo bind na ko ñaar mokkal wax ne tamit mokkal nañ ne fii la yonent bi waxoon def ko fa ngeen dagale ko noonu ba mu pare noonu lañ ko jëlee formé commission ba nekk ca di ko dagale di ko dagale di ko dagale ba kaamil bi yëpp dagaloo fenn fu nekk fañ koy war a bind ñi bokk ñoom ñëpp d'accord ca waaye kaamil booba ànd ak lépp nag amutoon saar mandargaay saar yi amut ci amutoon tomb amutoon maska amutoon aaya yi mandargaay aaya yi ak joxoñ yi mokkalaale woon nañ ko ci rek waaye nekkut ca bi kaamil bi paree tabaarakallaahu ñu tuddee ko suxuful ya noonu lañ ko tuddee woon bi kaamil bi pare kaamil booba jullit ñëpp ci lañ bokk di sukkandiku moo fi nekkoon moom kenn ba Aboubacar génn àdduna li fi Omar nekk moom kenn fi ne ba Seyd ba Seyduna Omar génn àdduna muy fukki at ak ñett ci gàddaay ga passé nag su ko defee Seyduna Ousmane ñëw fekk kaamil ba mang ca Seydatuna Hafsatu mii doomu Seyduna Omar naa Ousmane yónnee ko ne ko na ko yónnee kaamil bi ba mu ñëwee mu formé beneen commission ña leen jiite mooy Seydou Ibnu Saabit su ko defee tamit nag moo jiite commission ba ñu bind juróom-benni kaamil juróom-benneel ba sax Seydina Ousmane moo ko bind mi ko bind ci dirab kéwél kaamil bu rëy la boo demee tey Égypte Qahira ca masjidu Huseynu dañ la ko fa wan danañ la wan fam doon jàngee bañ fekk ko ca kër ga gaaw ko ray ko deret ja sax ma nga takk ca aaya jam tolloon muy suratu baqara fa sa yëkk fii ko huwa samun ali boo foofu la tolloon foofu lañ ko fekk ray ko ba léegi dañ koo xonqal fañ ko denc sax tamit dañ koo xonqal boo fa demee da nga fa fekkaale kawara yonuntu bi da nga fa fekkaale xetam wa da nga fa fekkaale ndabal tuske dëb la da nga fa fekk kaamilu sayduna aliyu waaye kaamil lañu yoo xam ne moom moo ko bindoon moom aliyu ca loxoom ba muy nekk kuufa comme ni Ousmane bindee bii ci loxoom bind ko ci dara darab kéwél waaye kaamil yooyu ko xam doole ko mën a yëkkati mais euh, mboccoor wala nekk ku néew doole kooka mënu koo yëkkati seen ñaari kaamil yëpp amul saar mandargaay saar yi amul tomb amul maska amul aaya mandarga ya amul xisib mandarga amul nisif amul rubox amul sumun mbind ma rek moo ca ne amul sax maska booba noonu lañ ko bindee ñoom waaye amoon na màndarga yu te maska am na màndarga yu daan te tegtale maska gi suñ jëlee tomb ba teg ko ca kaw mooy tekki fatha bu tomb bi nekkee ci suuf mooy tekki kasra bu nekkee ca kanama kanam mooy tekki dammu noonu lañ ko doon xamee di ko ko jàngaale booba kaamil tey ku ñu ko joxoon ñu ñi tabaarakalaa ku ci mën a jàng nekkut fi kon yëpp gannaaw yonent bi ci la am kon wax naa la bidaatu bi sayduna aboubacar def mooy dajale kaamil ba mu ne ñum tabaarakallaahu mu def ko jullit ñëpp di ko sukkandiku euh, lu mat fukki at ak ñett gannaaw si gi nag sayduna Usmaan door a bind juróom benni kaamil tasaare ko ci dëkk yi jullit ñi bi mu yóbbu ko Kuufa bii mu yóbbu ko Misra bii mu yóbbu ko Makka waaye juróom benneeli kaamil ba moom moo ko bind tabaarakallaahu ci loxol boppam noonu la ko tasaaree ba muy bind kaamilam booba nag tabaarakallaahu moom Seyduna Ousmane dafa formé commission wax naa la ko ñi taxawee liggéey ba muy kaamil boo xam ne bu rëy rëy la boo demee tay ca masjidu Xuseynu ca Kaayira da nga fa fekk maanaam kaamil booba ba fekkaale fa bu àlliw bi fekkaale fa kawaru yonuntu bi fekkaale fa doj dogi tus wa ak ya ca aju yëpp da nga ko ca fekk noonu lay continuer di dem ndax jamono yonantu bi mokkal alquran yombutoon maam Khalifa nee na juróom-ñeent nit rek ñoo ko mokkaloon maanaam mokkal ko mokkal gu rafet man koo tari Ubay ibnu Kaab ca la bokk Tamimu Daari Abu Ayub al Ansari Ubaadatu ibnu Sayduna Usmaan Abu Darda Saydu Abu Ayub al Muaz ibnu Jabal ñii ñoo ko mokkaloon Aliyu ak ku ñu watulee Salim ñii ne Aliyu mokkal na ko ñu ne fukki saar la mokkal xare yaa taxoon gannaaw si gii tabaarakallaahu la tëju juróom benn weer ci la mokkal alquran maam Khalifa ne maanaam xafisa alquran al muazama zaydun wa muazun ubayun niamal walaau wa abu ayuba tamimun wa usma nun la fi asraqat bihi lbathaau summa minhum ubadatun wa ibnu mas'udin wa man tunma lahu dardaau wa aliyun qaysun wa salimun aydan huwa mawla saidin fa hum qurraau ñii ñoo ko mokkaloon ànd ak saaba yi matoon nañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne tabaarakallaahu cent vingt ak ñeent cent vingt quatre mille sahaba matoon nañ ko waaye ñi ci mokk loon mokkaloon alquran ñii rek la ci commencement ba waaye na nag terewut kenn ku nekk ñoom ay dënn sa dënn bi xam ne lu ci nekk ci alquran nañ doon jànge ak ñun du benn ñoom aaye ju ne ña feru hijji dañ fer jàng hijji ma jàng boole gi jàng mokkal gi suñ paree jàng nuñ koy pratiquer ba mokkal ko door a demaat ci beneen ñun nag léegi li tax jàngal Alquran yomb ngay jàng rek mokkal dem di denc rek ñi mokkal alquran yëpp jëfeewuñ ko kon nag bu fekkoon ne tey ñi mokkal alquran yëpp ñu ngi koy jëfee coow li jeex ci àdduna bi carrément waaye jàng yi denc rek ak jàng yi daggi sant rek ak jàng di werante moo ci gën a bari Omar wala Ali ibn Abi Talib waxoon na ko mu ne ko bisa ngi ñëw ah dana bari ñu jàng alquran ngir daggi sant ba ñu koy jàng di ci wut pa nga tam àdduna moo fiy nekk loola hegg nañ ca kon ñii ñoo ko mokkaloon booba nag ñi ferul hijji dañ leen hijjal ñi nga xam ne fer nañ hijji ñi jàng ko ba mokk buñ paree pratiquer ko jàng mosta yomb xoolal ci jamonoy ngay ngay xool jàng lim doon lim doon jaar ci jamono yonent bi lim seeree woon yaa ngi koy xamee ci prison ya yan jàppeen xare Badar juróom-ñaar fukk ya yonent bi dafa ne woon ñi xam doole balañ leen a mën a libeere ñeen maanaam ñeenti junne la ñuy joxe ci ay dërëm ci dërëm yooya ña doole benn junne la ñuy joxe boo jëloon dërëm yooya ñeenti junne ya nga évaluer ko ci suñ xaalis mu ngi lay jox ñaar fukki million ak juróom mbenn ak téeméeri junne vingt six million cinq cent lay tollook mu ne nag ñi amul ñi amul loola amuñu timit junne yi benn junney dërëm dañ leen di jox fukki xale wala fukki mag ñu jàngal leen bañ bañ fer ijji booba kon jàngal fukki nit bañ fer ijji piréem ba moo tolloo xoon nag ñaar fukki million ak juróom benn ak téeméeri junni ci jamono yonantu bi loolu la caajoon ñañ jàppoon ca xare badar ba te mënu ñoo njotu kon nag yow boo fi jàngalee mu ne la yow weer wu dee juróomi junni dafa laa may mënoo koo fay sa doom ji boo amee euh, juróomi at ci daara ji wala moo am ñeenti at wala ñetti at boo calculer li nga fay lépp matul un million cinq cent sa xale bi mokkal alquran te un million cinq cent bu ko jàppee fay boo la juróomi junne laay fay ci la ci ngay añ ci ngay reer ci ngay ndékki ci ngay utiliser courant bi ci ventilateur ya ngay sangu ci lañ lay utal ku lay yar ak ku la jàngal te boo wàcce woon juróomi junne par par ci fanweeri fan yi ay huit cent nangam la lay jox waaye huit cent franc daanaka mënta jënd palaat ab ceeb bu baax kon añ rek daanaka mënu ko yow nag ñi la koy fayeeku nga yore yu dul jeex soo waxee léegi léeg nga ne ah dëkk bee métti te yow génn kër nga yore borom internat ba lee ay kër la yore na internat ba toll noonu la kër ya toll bu dee juróom fukki élève la am juróom fukki kër la boole te kër yam boole ka ci gën a ñi ñàkk yaakaar lañ ko booleel muy jànkuwanteeg loola di fay luyaas Euh, jël benn kër di fay juróom benn fukki junne di fay ay jàngale kat ku feebar mu faj la yow juróomi junne yi dox seen diggante rek mënoo koo fay foo ko teg te xoolal jamono yonantu bi feri ji laa wax rek te kat internat yi koo ci jox ñetti weer gën caa bëri maanaam jëm ñeenti weer mu far mu fer iji booba nag te yi koo ca dem xalqaam bam yor ñaar fukk ak ñett ñaar fukk juróom ba ñaar fukk ak juróom benn jëm kaw booba nag xalqa yi yonantu bi daan doxal xalqaat ya fukk lay doon doo paase fukk fukk nit lañ lay jox nga jàngaleen bañ far iji mu tolloog euh, ñeent ñeenti junne dërëm yi nga waroon nañ jotoo tolloog suñ xaalis ñaar fukki million ak juróom-benn ak téeméeri junne. loolu fekkoon tey moom dañ continuer di ko fay ñëpp licence nañ amul jàng fatiha de amul hijjee naan bismillahi déedéet ñooñu xéeféer lañ xamuñ fatiha xamuñ xul walaaw xàmmeel xaraf yi rek soo ko jàngee fukki nit yi la yonent bi jox bañ xàmmee xaraf rek ñu libéré la nga dem mu mu mu ñaar fukki million ak juróom-benn ak téeméeri junne moo doon fer hijji kon ku jàng faatiha lu ñu la war a fay mu jàngal la xul walaaw nga wàcc kaamil bi ñu ca bëri gore xadi keroog ba seen doom mokk mokkale lañ tëj ca daara ja dootu leen gisatoo leen déggati bu fa seen doom ya ne nag bët bu seen ña ngay ñëw nga foog ne yow lañ fonk fekk seen doom yi dong lañ fonk boo leen gisatu dootoo leen gisati ba mukk kon alxuraan a ngoog bi mu soqee ko ba léegi musuñ koo jàngee fuñ ko fayee koo fay ni ñoo wute rek jamono yonantu bi joxe kuur moo bëri woon ku tuub rek dafa am comme lay booleek mu ñëw ca kër ga di la jox kuur buy dem nga làmbal ko poos loo xam nga jox ko loolu moo bëri woon moom defoon na daara di jàngale gratuit ci daaru arqam ñu koy tuddee xay suraanatu fa la nekkoon di jàngale ku ñëw moom mu jàngal la ku tuub war a dem sa kër mu am kum la booleeg ne la demal kooka jàngal la su boobaa nag yow bu la joxee trente alquran nga am lool nga làmb sa poos loo ko mën nga jox ko ko te yàlla rek tax loolu moo fi nekkoon ci jamonoy saaba yi ba ñëwee gàddaay si mu jël ñii mën nañu alquran waaye seen loxo jotul seen gannaaw mu boole leen nag ñi seen loxo jot seen gannaaw te mënuñu alquran séexale leen tànn ñeen fukk ak juróom ci muhaajiriina yi séexale leen ak ñeen fukk ak juróom ci wàllan lansaar jël ku mel ni Aboubacar séexale ko Sayd ibnu Xaarijata jël ku mel ni Abdourahman ibnu Awf séexale ko Saad ibnu Rabia demeet noonu la ko jëlee jël ku mel ni Musab ibnu Umayr séexale ko Abu Ayyub al Ansaari kenn ku ne la man yaa ngi ko ciy dimbale sa moroom ñii mën nañu alquran ñu ngi leen dimbale di leen jàngalaale di leen dimbale ci seen doole ñoom tamit ñu leen yóbbu di leen dimbale ci luñ lekk luñ sol ak lu ñuy jox seen waa njaboot ga noonu lañ doon defee moo doon fay ga noonu lañ ko daan doxalee moo taxoon Saad ibnu Rabia waxoon Abdurahman ibnu Awf ne ko yow la ma yonent bi jox maa ngi sama ñaari soxna yaa ngi nii ñaar laa am yaay tànn koo ca bëgg ba ne bëgg naa ko ma fase ko ba pare bu jàppee yàdd nga door koo takk waxuma man ki ma bëgg bu doon léegi kay fekkoon yaay tànn ko la bëgg bu la neexee nga ne ko man naa fase aawa bi nga jël ko waaye dafa na la séet bi sax boo ko bëggee ma fase ko bu jàppee yedd nga jël ko sama tool yaa ngi tànnal bu la neex nga jël ko sama yére yaa ngi tànnal bu la neex nga jël ko Abdourahman ibnu Awf ne ko li nga proposé yëpp baax na bëgg naa ko waaye delloo naa la ko wan ma yoonu marché bi rek wan ko yoonu marché bi mu jënd ak jaay ba mujj bokk ci ñi gën a riche ci saxaabaay Seydina Muhammad yi mook Seydina Ousmane ñi ci gënoon a riis ci lañ bokk kon kenn du yonantu bi moo mën a yar nit ba lim am am te soxla man koo joxe te yàlla tax waaye moo mën a yar nit ba ki ñuy jox lam soxla yow mii ñu koy jox soxla nga ko comme ki la koy jox ni mu ko soxlaa wala nga gën ko ko soxla nga mën ko koo dumóoyu delloo ko ko loola yombut yar nit ba mën a joxe lim bëgg am te soxla waaye nga yar nit tamit ba mën a dumóoyu liñ koy jox tam am te soxla kooku yonantu bi rek moo ko mën sallallahu alayhi wasallam wa yuusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa waaye tey bu doon ñu bari baadolo moo leen di jàpp seen yar ya baaxut doyut waa ñu proposé la ñaari jabaram yi tànnal nga ne ko jox ma seet bi man nga koo fase léegi bu jàppee yadda ma takk ko mu des góom ci xolam bu yàggee ngeen yàquwante mu ne sama ñaari tool yi nga seet bi gën a meññ gën a yaatu gën a tàlli nga ne ko jox ma ko nga cay bay am nawet bu yàggee mu def góom ci xolam sama naaru góor yi nga jël ba gën a baax mu def góom ci xolam bu yàggee mën naa dem ba burtab génn ci diina ci waaye dafa yar kii ba mën a joxe lim lim am te am ca soxla waaye yar na kii tamit ba mën a delloo liñ koy jox tam am ca soxla kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wa kon nag Aboubacar ngoog ci sos bidaa xeex ak ku tudd baatu seede bi di julli yemul ca mu jàllale bi ko dajalee alquran def ko benn kaamil jullit ñi di ca sukkandiku fukki at ak ñett su ko defee Seyduna Usmaan tamit ñëw sosab kaamil gannaawam tabaarakallaahu jiital ca ubay ñu koy ñi tànn ko ba lépp nekk lam nekk mu def ko juróom benni kaamil benn ba moo ko bind ci loxoom tasaare ko ci dëkk yi dëkki jullit ñi lii lépp ay bidaa ñoo ko def te yonentu musu koo def waxut fent mi ne def leen ko waaye nag dafa gis ne comme noppi na ca rek loola njëggal la dara nekku ci bu ca dara newoon rek mu wax ca dara kon bu ko bu ko mukk ci kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala du sotti jëlal sayduna ali sayduna ousmane mooy ki njëkk a sos noddu gu njëkk ga ñu tuddee ni daawu sawra ñun ñu ko tuddee ni daawu sawaal ci juma li fi yonentu bi nekk yëpp genn noddu aboubacar genn noddu sayduna omar genn noddu bu demee ba ñëw ci jàkka ji lay noddukat bi jug noddu mu jug ba moom yonantu bi mbaa Aboubacar mbaa Seydouna Omar bu ko defee ñu taxawal julli ga waaye bi Seydouna Ousmane ñëwee ba dina bëri ay sancaan buñ demee ba jumaa ji des lu mat waxtu lay wax ne nañ ko noddu ca pegg dëkk ba ñëpp xam ne tey la jumaa ñiy waaj waaj préparé su ko defee ñu ñëw dege ci jumaa gi ñu door a noddaat kon googa noddu moo ko ci sos waaye ci jamono yonantu beeg Seydina Aboubacar ak Omar amut ci waaye lim soskat ci diine ji la bokk defee neneen la waaye dugub def leneen naka jekk nodd mi ngi diine ji te yonantu bi moo ko moo ko moo ko moo moo moo ko ko yoonal ci ci ci ci ci gént ci la ñëwee waxoon naa la ko bañ ca yeggee ca wàllu nodd ak la ca xaju su ko defee timit tabaarakallaahu ci saxaabi yi boobu géntoon ko andil ko ko mu ne ko géntoo mais da gis beneen bi ci tegu naa Aliyu mii moom tamit sos na bidaa li fi yonantu bi nekk yëpp julleeg eet korité ak tabaski jumaa ja ca Madina ñii jumaa ja ca Makka ñëpp ci jumaa yi lañ daan jullee korité ak tabaski moom nag ba mu ñëwee ñu ne ko Madina dafa bari ay ñu lompañ ñu mënta génn dem julli ji ñii ñi nga am feebaru tànk ñii feebaru ndigg kenn gënu leen a bëgg yool mu santaane ne maanaam booba julli yëpp julli iid yi kon dañ ko daan jullee ci àll ba li fi Aboubacar nekk ci àll ba Seydouna Omar ci àll ba Seydouna Ousmane ci àll ba Seydouna Mouhamed ci àll ba lañ daan julli jee tabaski ak korite ba àll yu ñëwee ñu ne ko Madina ak fii nga nekk di ko bëri na fi ñu màgget ñu mënta dem ci àll ba ñenn ñi màggetuñ mais si ñoo amee feebaru ndigg ndigg laa paan ñenn ña tànk yaa paan te bëgg nañu yiw mu santaane ne nañ taxawal jullig eet muy tabaski ak korite ci jàkkaay yonantu bi sallallahu alayhi wa ak ca euh, masjidul haram fële ca mu karama ak ca dëkk yu mag yëpp ba tey moom lañ koy def boo demee tey madina tabaski korite yëpp ca jàkka ja masjidul haram ca jàkka ja Kudus ca jàkka ja dëkk yu mag yëpp tey ca jàkka ja waay waay loolu mooy ki ko njëkk a def musta am ci jamono yonantu musu ko def yonantu musu musu koo wax tamit waaye terewut ko nag da koo bàyyi rek mu ñëw nag defee neneen waaye defut leneen su ko defee kon tey xam nga ne àlliw dimbale nañu de su fekkoon ne tey dañ ne woon jullee xee di ci àll ba yow mi dëkk Ndakaaru boo bëggee dem àll ba foo jëm xanaa kaañ bala nga faa julli bay ñëw bay rendi sa tabaski mi trois heures passées boo moytuwul boo ñëw da nga fekk ñu julli ji wu ñëpp rendi seen tabaski ya kon diine lu yomb la ku koy jéem a tatal mu not la kenn mënu ca dara kenn mënu ko ñëpp tey ca ca foofu la ñu julli tey demeet xoolal tey li ñëpp ma wax la ay saxaabi lañ wax naa la Abubakar ak lam sos ci dajale alquran xeex ak ñi bañ a joxe asaka Seyduna Omar wax naa la lam sos moom ci boppam muy jullik jullik jullik naafila taraweex yi weeru koor ca jàkka ja mu jël Ubay ibnu Kaab jiite ko Seydina Ousmane ca nodd gu njëkk ga ci bisab juma muy ni daawu sawra Seydina Aliyu ci julli julli ki xeet bàyyi ko ci àll ba indi ko ci juma yi ak jàkka yi ci dëkk bi moo ko fi njëkk def tay ma wax la nag taabiina yi biddaa yiñ sos tabaarakallaahu loola lu bëree bari la xam naa su ma ko bëggee topp dax dama la koy lebalaat rek ñu lebaat ko ba suba ci waxtu wi bu ñu fi yàlla bàyyee ma sosoog ak yow li ma sosoog ak yow li ma sosoon ak yow wax naa la biddaa yi ñu def ci ci kanam yonantu bi doo xam yonantu deful ko waxul ko ñoom ñu def ko waaye bu ko tuddee sax biddaa tuddee ko defee neneen rek waaye du. waaye ak xoolal yii ñu def gannaaw bi nga xamee ne yonantu bi génn àdduna saaba yi def ko te yonantu bi defu ko woon te waxu ne def leen ko waaye da caa noppi rek ñi xam ne luñ noppi lu nekk njëgal la mu jeex. waaye tamit na boo ma toppee suba nag ma ñëw ak yow na yi wuutu saxaaba yi liñ fi def bokk na ci tombu alquran bokk na ci maas ko bokk na ci indi joxoñ yi ak sidda yi bokk na ci mandargaay xisib yi ak sumun yi yooyu yëpp boo ma toppee suba ma wax la ko ak wax la Omar ibnu Abdul Aziz mu ngi tuddee dàkkantale xaamisul xulafa bidaa bu bi mu sos terul mostaam waaye wooyu yëpp boo ko jëlee dinaa daane yow sax ba ci ñay contre biddaa ñoom tamit am na ay biddaa yuñ sos yonent bi waxu defu ko te mosul koo digle te ñoom ñu ngi koy def mënuñ koo bàyyi su boobaa tamit nag kon loola mooy nekk suñ boppam darsu bi ëllëg ci waxtu yi bu ñu fi yàlla bàyyee wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحوار